شكر لرب كريم منك نزكى وارتجي asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare di am mbégte ak kontaante bu baax ah, bërëb bi ñu taxaw nag mooy ëttub kër soxna Fat Dia bintu Xaadim Rasul tey di bis bi nga xam ne ci doon koy fàttaliku njaboot gi yëpp di ko fàttaliku waaye ku ne xam ne bis bi buñ ko tuddee muy soxna Faty Dia bintu Xaadim Rasul xel yëpp dana dem ci njabootu sëñ Daaru Xasan Ndiaye moo tax ku gis jataay bi nii mu mel xam ne kon njabootu sëñ Daaru Xasan Ndiaye gi am nañ ci wàll ci bis bi moo waral taxawaay bi ak passeef bii ñu wane ak mobilisé gi nga xam ne mbooloo mi mobilisé nañ ko ngir taxaw ci bisu soxna Faty Dia bii dara wërlu ko lu dul jëmmi sëriñ Daaru Xasan Ndiaye te ku xam ne loolu njëmbatub sëriñ Touba ndax sëriñ bu mag bi mooy meññ soxna fat ja jëloon soxna Fatou Dia jox ko sëñ sëñ Hassan Ndiaye kon moo waral taxawaay bi njaboot gi am ko ci. sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Daaru Hassan nag joxe ndigal mboolem ku yaakaar sëñ Daaru Hassan mu taxaw ci bis bi rawatina jamaa bi ñu wax jamaatu ahibba Cheikh El Hassan mooy njaboot gi nga xam ne moo lëkkale mboolem njaboot sëñ Daaru Hassan ci biir réew ak bitim réew ñu taxaw fii ci bis bi ngir ànd koog njabootu soxna Fatou Dia gépp ngir dundal bis bi nga xam mooy bi soxna Fatou Dia ngir jëmmi Serigne Touba kon loolu mooy taxawaay bi nga xam ne Kassine Darou Assane am nan ko ci bisub Soxna Fatia bi ku ne xam ne Serigne bi moo jëloon Soxna Fatia dénk ko Serigne Darou Assane Serigne Darou Assane it doon liggéeyal Serigne Touba waaye it ba lii am ba tax njaboot gi am ci taxawaay bu ràññiku bi mboolem ku fu mos a wuutu Serigne Darou Assane Ndiaye amoon nga ab taxawaay bu ràññiku ci bis Soxna Fatia rawatina Serigne Cheikh Fassile Ndiaye xéwal da daa wax ne seenub cër Serigne kat mooy Soxna faj ja ndax sëñ Tuubaa kat képp kum cërale dana ko wax baa mu jëflante ko yow ba ñëpp xam ko waaye cër bi sëñ Daaru Asan am sëñ Tuubaa soxna Faat Jaa mii mooy wane ne kon sëñ am na cër bu mu cërale sëñ Daaru Asan Njaay ci boppam te loolu lii firndeel na ko moo tax it sëñ Seex Faat Jaa daa wax cër ci sëñ Tuubaa mooy taxawu bisub soxna Faat Jaa bi kon bisub soxna Faat Jaa bi moo tax jamaat ay Baay Cheikh mboolem commission yëpp ñëw ànd doon benn commission muy commission organisation fexe toog xéwal yi fexe taxaw lépp loo xam ne gan ñi dañ koy soxlawoo kilifa yi dañ koy soxlawoo ba tax ñëwit màggal gi saa bu dëgmale ñu ñëw ci sëriñ bi yëgal ko màggal gi jaar ci jëwriñam si Moustapha ba sëñ Ibrahima jëm mu jox ndigal daayira bi ngir ñu taxawe ko commission organisation ak jàmbaar yi ñu ko àndal jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp dem ba tey ñu ngi fi lépp loo xam ne bés bi doo koy laaj ci organisation ñu taxaw ci ba mat sëkk mbana yin fi taal yaatu na lool def nañ ko ñaari waañ yëpp dara wërlu ko lu taxawu gan ñi ba xéwal yi mat def nañ fi ab baasit ba matériel bi nga xam ne sëñ njabar sëñ Daas Njaay ñoo ko moom lépp ñu génne ko indi ko ci bis soxna Faat Jabi ngir lan ngir wane ne bis bi bis bi sëñ Daaru Xasan la ndax kenn ci moom ci njabootam gi xalifaam yi ñoom ñëw nañ fi taxaw na noonu ware ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe yi suñu taxawaay mooy taxawu gan ñi ban xéwalu dal dal bu mucc ayib ban pare ñu yeewee ñu doog a delluwaat ci yittee loolu day tette na kon ab cër la bu sëñ Daaru Xasan am ci soxna Faat Jabi te mboolem njaboot gi li ñuy taxaw ci màggal gi bu Sëñ Daaru Asan nekkoon tey moo koy taxawal boppam ndax ab cër la bu mu am ci Sëñ Tuubaa te ku ne xam na ne Sëñ Tuubaa ay mbiram nii rek lay demee du féete ginnaaw waaye kanam rek la jëm di day tegtal na kon Sëñ Daaru Asan am na cër bu màgg a màgg ci kër Sëñ Tuubaa waxuma jëf gi ko jëfal ba mu gërëm ko yeewee ko tafal ko mbooloo waaye dénk gi mu ko dénk njabootam gi loolu day tegtal na kon ku mu doy loola ku mu la ku am yaakaar ci moom la kon loolu faaw ñu bàyyi ko xel moo tax jamaat ay Baye Cheikh Assane bis bi ñu boole ko ci bis yi gën a màgg ci ñoom màggul sëñ Darou Assane taxawaay bi ñu ci taxaw bi ñu war moo ñu war ci taxawaay bi mën naa sax taxawaay bi moo gën a war ndax lépp lu am siñ Darou Assane tey bari ko ndamoo sëñ Touba te soxna Fatou Dia njaboot la ci sëriñ bu mag bi kon ñu xam ne kon bis bi taxawaay bii ñu taxaw moo ñu war lépp lu ci mat nag ñu sant ko suñu borom lépp lu ci dëngit te waroon na mat te matut ñu jéggal ñu ko te xam ne doomu aadama mat waaye daal bu ñu sañoon bis soxna Fatou Dia bi lépp lu fi am ci ñoom lay bàyyi ko lépp lu mu far taxaw ñoo koy taxaw ndax ñoom rek la ko Sëñ Tuubaa dénkoon Sëñ Tuubaa bu la dénkee do njabootam kon war na la njaboot yaa ko jodee kon bés bi ñu defee soxna Faty Dia lépp lu ci waroon rek njaboot suñu des njaay la war kon ñi ñaan yàlla ñu yàgg ko fekkee njëriñ ji fi nekk yàlla na ko yàlla gën a taxaw gën koo aar mu gunge njabootu sëñ soxna Faty Dia bintu Xaadimu Rasuul ba ci kanam waaye gën a ñaanal Sëñ Abdou Xaadir mooy mu gunge njabootu suñu des njaay ba ci ñu ànd di liggéey Sëñ Tuubaa ba ci kanam sëriñ bi yàlla na yàlla gërëm lépp te nangu ko ci barkeb Sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu